saya mau Ali Sahabat dia belakang dongkola dan

lan la ñu mën a jàpp ci confrontation bi tey jii ak Sonko. parce que je m'attendais que ñu def benn mais tey jii dama gis ne tey benn confrontation à travers la parce que nangu woon donc def buñ ko laajee pour aji mu dem tontu mooy

dangay fen nga nga dellusiwaat ñu ne loolu dëgg tey j'ai vu Ousmane boobu mosuma gis. tey j'ai vu Ousmane bi ma xamoon si télé nii la defoon mais quand même bi parce que ñu bàyyi ñu koy wax daf la wax ne dangay fen nga ne ko dëgg ba mu nekk amul fi wax ak man dommage. ba tey daal yéen ñaar jokkalante wala ay kàddu. dafa bañ dafa bañ dafa bañ pour wax ak man. maître El Hadji doon waxal. maître El Hadji doon waxal. moom ndax na mën a tontu ci question doyen des juges. tontuwul doyen des juges tontuwul maître El Hadji tontuwul procureur. mais aji aji aji man par contre yëpp tontu naa samay avocat tontu naa. am nañu mais par contre j'ai jamais dit que dama dama ëmb donc. je vois pas le pourquoi.